suñu problème mooy ndox lañ amul teen lañ fa am teen bi buñ ko amee buñ ko buñ ko gasee ñaari yoon baa ñetti yoon bu subaa dañuy day mel ne mosuñu koo gas suñu jigéen ñi problème mu ndox lañ am en plus ñun mënuñoo mënu ñun mënuñoo conserver benn affaire mënuñoo conserver benn affaire sotti doo bi nekk fii même pas deux kilomètres ñu ne sotti doo bi ñu ne sotti bi bokk na si sotti doo yi gën a rëy euh, Afrique de l'Ouest te mënuñoo am ndox. ñu jege ko mënuñoo am ndox suñu jigéen ñaa ngi balaa ñoo root problème bu ne la ñuy daj en plus suñu talibaa ngi rang bi kenn mënul comprendre parce que tali bi euh, euh, rang bi boo ko rombee boo ko rombee oto yi mënul cee dugg ba ci biir parce que problème euh, dugg ci biir la ñuy am en plus suñu hôpital bi mu ngi nele amuñu ku fa mën a nekk à tout moment pour ay urgence bu amee wala affaire yooyu loolu mooy suñu problème lu ñu mën a dimbale ñu jël ñu buñ ñu fàtte waa Folox waa Folox lañ bokk ci dëkk bi lañ dëkk nañ dimbale ngir yàlla def nañ démarche bu ne Nous avons des problèmes. ne problème ndox problème problème problème sérieux sérieux sérieux francs même chose déjà 60 dara teen baa ngi nii bu juróomi jigéen rootee rek teen bi jeex na loolu nekk na suñu problème ñu ngi koy jooytu fu ne dem nañu gis nañu le maire on a tout fait mais jusqu'à présent y a pas am na robine yi fi jot a mais dañ ko jaarale ne la ci boulevard bi mu dem ba ci buntu kër dalege bi fa la affaire bi yem juróomi robinet fi am robinet yi dañ ñu sori fii natt nañu ba ci suñu mbedd mi fi ngeen woon natt nañ ko.

bon ay cas urgence day am bo togué ba ay 2 h 3 h du matin ben jigen de wara accoucher amo auto bu ko yobbu pour yobbu ko ONCAD mais aussi c'est est un peu difficile quoi franchement parler. ñun Falokh Mbour dal ñu ngi yuuxu ñu ngi yuuxu di def appel na ci chef de l'état nako yegg ñu xamné ñun ñi ci dëkk bi lañu ñu bokk mais ci Mbour lañu ñu bokk nañ yuuxu nañ ñu may wasalaam. Falokh Mbour dafa bokk ci commune Mbour. ñu sonn lool nag mar lool suñuy teen jeex nañu amuñu ndox robinet yi fi nekk ña nga ca ginnaaw kër ca buntu kër délégué la commencé te sori nañu plus de 500 mètres di nga ko dox te doo am ndox waa dëkk bi sonn nañu mag ñi tilim nañu xale yi tilim nañu mënuñoo am ndox suñuy teen jeex nañ tàkk. daanaka at mu jot dinañ def ci teen bi plus de quatre-vingt-dix mille ñu gasal ñu ko te du tax ñu am ndox barki démb lañ ñu ko gasal waaye amagul une semaine maa ngi nii teen baa ngi wow ko ñun nag sonn nañu premier avertissement baa ngi nii buñ ci delluwaatee day demee naneen noo xam ne du nekk nii ndax du boobaa ginnaawam dëkk bi nak dañoo son ndax ñun boole wuñu ci dara bañ ñu fi tegee kérok ci timis biñ ñu fi wàccee ak tay fekk si ñu fi ak dara fukki at fukki at bak benn ci ren sonu nañu tali bi ñu ko xossal bañu yegg ci bitigu Morlan bi di arabi pour tataay mëna dugg si taliba ngi ni ay kamb la def bu bu nawet bi ñëwé kenn du génn dëkk bi lamp yaa ngi nii que amul amuñu lamp courant bi dara baaxu si am poto yaa ngi nii taxaw benn lamp amu ci bu guddee sa euh, leeraay bi sa biir kër la yem booy génn torche nga yor te ku ne xam na ne sancaa neexul dëkk bi mbalit mi dañ koy jële ci biir mbuur di ko tuur see biir lox mbuur neexuñu ndax ñu nit ay nit lañu loolu baaxul suñu hôpital bi nga xam ne fi la mooy poste de santé bi ICP bi fi nekk chaque jour day jënd 600 ndox waa ICP bi bu dee jënd ndox kon waa dëkk bi nu ñuy def te dañu ne corona bi dañu koy commencé ci raxasu waa ku amul ndox moo naa ndax di nga raxasu ñun nag président Macky ñun yow la ñuy waxal ndax ñun ñii dañoo bokk ci ñi la fal kon bu ñu sañoon nga geesuñu ndax maire bi fi nekk nekkalu fi kenn ku dul boppam defaluñu dara dara defaluñu ko bi ñu fi nekkee ba léegi defaluñu dara moom ak ñim fi teg ñëpp seen bopp kese lañ fi nekkal ñun nag sonn nañu sonn nañu amatuñu benn espace suñu wax suñu xale yi fi ñu doon footballé nangu nañ ko ci moom def nañ ko centre tu liggéey nañ bam neex nañ arrêté nañ ko xale yi amuñu fu ñu footballé amuñu tali suñu poste de santé bi amuñu sax logement boo xamante ne borom mën na fee fanaan pour en cas d'urgence guddi bu amee nit ki mën a dem foofu ñu def sax premier join amul amuñu ko sonn nañu suñu mbedd yaa ngi lëndam suñu teen yi amuñu ndox amuñu robinet ay robinet ci suñu biir kër lañu bëgg branchement sociaux lañu ñu bëgg dañoo bëgg bu ñun bu dara desul lu dul rek ñu di génne lu mu ndaw ndaw suñu xaalis dinañ ko génne fay ñun yor nañ la ñu ñaanuñu kenn mais branchement sociaux lañu bëgg déposé won nañu suñuy kayit bloqué nañ ko ci kaw ñun dañoo sonn tey nag avertir nañ avertir nañ leen wax jot na bañ fi toogee ba tey mësuñoo wax xeexuñu nag xuloowuñu xassewuñu waxuñu kenn lu ñaaw waaye dañu ne ndox lañu bëgg